ci mu soutenir Pastef mais fàttewuñu fàttewuñu li nga xam ne moom moo fi amoon ak li mu waxoon ak li mu leen accusé loolu aussi euh, dafay wane ni rek parti Pastef am na nu mu tëddee am na noo xam noonu lañu bëgg mu demee donc nañu leen bàyyee ak seen parti ak seen doxalin gis nga euh, li mu def xaw ma da ko def pour pour wane ni Ousmane xaritam la ou da ko def pour wane ni moom fi mu toll nii dafa nekk ci tànk transhumé mais ak lu mën a am mooy le moment est très mal très mal choisi parce que au moins doon na encadre doon na incarné benn benn respect ak benn dignité boo xam ni taxoon na nit ñi admirer ko am fu ñu ko teg donc boo ñëwee ba en situation de crise ci biir parti démocratique sénégalais nga waroon mën a am position bu déterminant am tànk boo ci taxawee boo demee ba nga xam ne si defatoo loolu mais parti adverse bi nga xam ne si yow fa nga bokk ñoom moom lañu war a jàkkaarlool boo nee damay soutenir rek mooy yaa ngi ci tànk trahir li nga xam ne si ne moom mooy sa parti d'origine li am nag ni nga xam ne si noonu la waa parti euh, noonu la waa Pastef ginnaaw raay jëlee acte noonu aussi la PDS di jëlee acte moom après fan lay dellu fan la jëm parce que élection législative yi day jeex donc li mu wértoor moom mooy moom tànk yi mu jël mooy pare na PDS dootu fa mën a dellu ak lu mën a am moom PDS da koy commencé conjuguer au bien que PDS dafa nekk situation ci dislocation boo xam si kenn xamatul bopp ak gi fan la te li ko indi lépp mooy Karim Wade fekk fait que Karim Wade sori parti bi depuis des années ñu koy wax ñëwal ñëwal ñëwul ba léegi ñu koy séntu ba mëntuñ ko séntu ñi mu doon wax loolu ñuy annoncé ni dina ñëw Baara Gaye ak ñëpp vraiment dañoo wax ba mënatuñ wax Farba Senghor looloo ko génnee parti punkal yi génn ci parti démocratique yëpp li leen génnee mooy doon wax ni euh, euh, euh, Karim Wade dina ñëw sauf far ba Senghor moo mës a wax ni Karim du ñëw wax jooju ba Senghor doon wax ni Karim du mës a ñëw te du ñëw te bàyyi leen di wax ni Karim dina ñëw c'est le moment nag ñu dem de far ba ni ko bi muy wax depuis cinq ans ci ginnaaw sept ans ci ginnaaw ni Karim du ñëw fan la ko teg parce que c'est le moment ñu toog ak moom laaj ko Pape sàmm Mboup waxoon na lu mel noonu mais soriwu ci donc Pape Samba Mboup maître Madické Niang ak euh, ba Senghor bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gënoon a miin PDS ak seen i ay doxalin Cheikh Cheikh Cheikh Tidiane Dieng bii bi muy génn PDS di dem lu mel nii la wax dafa bind lettre ne carrément seul déterminateur commun bi ñu booleel moo di laay wadd mais actuellement ki nga xam ne si ni moom mooy décider te kenn du ko wax lu muy def moom mooy Karim te tant que yaa ngi wax ci loo xam ne si ni nekkul ci avantage yu Karim da ngay génn parti bi te moom gis na ni actuellement Karim ak Macky Sall ci jamono boobu ñu ngi doon dil donc moom mu préféré woon. moom Cheikh Dieng bi nga xam ne moo nekkoon ministre euh, directeur euh, ONAS moom la ñu tëbal donc jaar-jaaram ak génn parti bi aussi li ko war waraloon moom moo di wax ci Karim Wade léegi nag moom tamit na jël ay responsabilités am fi ñu toll nii concernant li ñu doon wax sànq ay Ndiagne Diop ak euh, ñoom ñëpp boo leen boole li ma ci bëgg a wax mooy seeni ay intérêt personnel Fatima moo leen tax a jóg dematuñu ci benn parti politique par conviction dem ci Amadou Ba par conviction. da ngay dem parce que gis nga ni da ngeen di traversé li leneen a ñëw parce que da nga fay dem parce que da nga gëm ni Sénégal moo la intéressé mais ñii dem ci coalition yi tey jii boo génnee coalition bi gën a dëggu te li ñu wax nga xam ne seen ni benn kàddu lañu ñu waxaatuñu leneen. moom may sàmm sa kàddu sàmm sa kàddu rek la gisagul crise la ñu gisagul ay communiqué yoo xam ne si dafay jaxasoo benn kàddu la ñuy waxee benn doxalin la ñuy doxalee moo tax fi mu toll nii su sujet bi jëmul si ñoom mënoo wax ci ñoom parce que nit ñi dañoo dañoo dañoo verrouillé seen communication ak seen i ay liste ak seeni doxalin donc noonu nag les les anciens partis politiques yi fi nekk les anciens leaders noonu la ñu waroon doxee exemple bii ñoom sàmm sa kàddu def ñoom ñoo ko waroon def mais tey jii malheureusement Amadou Ba coow li ko toppoon ci élection présidentielle. moo ko bàyyeegul bàyyeegu ko. parce que présidentielle bi li tax Amadou Ba gañewul 33 pour cent yi su fekkoon se ni parti bi compactoon na amul woon jeexi jaaxa entre Macky sàll ak ñi nga xam ne ñoo di les responsables parti ñëpp teewoon Amadou Ba je suis sûr doon gagné nii parce que le fait que xamuñu woon Macky lan lay décider dinañ dem élection duñ dem élection Amadou Ba lay jàppale jàppalewul Amadou Ba ñuy diaboliser ba nga xam ne si benn moment mënatuñu woon ci élection yi parce que Amadou Ba ci boppam amatuloon confiance ci boppam mënuñu continuer di dem ci ay élection législative ñu jàpp ni ñoom ñëpp bu ñu demee dañuy am parce que tey ji bi parti socialiste décidé day dem fekk ji Amadou Ba mais lu gën a riche loolu amul woon ça faisait peur gis parti socialiste gis AFP gis punkal yëpp topp ci ginnaaw gis lee collectivités les euh, euh, les maires topp ci ginnaaw mais da nga naan lii coalition bi fan la jëm mais le fekk que ñu décidé ni investiruñ leen mais investiruñ la wallu tax parti tas ñoom ñëpp seen intérêt bopp moo leen dugal élection yi nag ñaar rek moom moo ci am ànd sauver Sénégal. ou ànd sauver sa bopp sauver sa bopp mooy ñi nga xam ne seeni dañuy bañ dem ci haute cour de justice te gis nañ ni pour le moment li ñu mën def moom moo di daw dugg ci benn list ñu investir leen pour que ëllëg ñu nekk député pour gën a retarder li nga xam ne moom moo di seeni ay poursuites parce que immunité parlementaire la ñuy wut donc ku mënta am bu ñu la investirul forcément day créer crise da ngay ciy gis sa bopp parce que lu ñu jëm ay lendemain yu sombre lañ jëm ak li nga xam ne moo di le régime en place ci lan lañ jëm moom mooy bépp membre bu ancien régime bi fi nekk Mm. dinañ teg haute cour la justice boo xam ne si ne ni. dinañ ko teg amul ministre amul président amul dara. ñëpp ay dem te ni ñu ko annoncé c'est pas que justice moom moo décidé mais des responsables des hommes politiques yoo xam ne si ne ni ils n'ont rien à voir avec la justice mais ñoom ñooy wax et li ñuy wax nekk dëgg donc nañu xaar ay lendemain yu sombre ci li nga xam ne mooy les responsables politiques mais aussi suñ ci continuer li ci doy waat moom mooy dañuy dem vers la dictature est-ce que bu boobaa nag euh, ay ay mouvement wala lu lu raw Staline dina fi am parce que ci nii lay nii lay non non on le souhaite pas ko souhaité wuñ ko Ali Dada nii la dem ba egg ci rôle maréchal ni moom fi ñu toll ni maréchal la parce que dem na ba lu mu bëgg day sotti Amin Ali Dada noonu la def euh, Staline noon la def ci lii lay commencé mooy benn benn benn benn ba finalement en fait dañu koy miin ba nit ñëpp dañu lay ragal parce que ku wax nga dóor ku wax nga tëj tey ji jéegi li ko li ñu wax ni lañ tëjee jéegi ci kaso bi lan 33 millions mais 33 millions boo koy toppee ni te muy dëgg nga laaj ko ay preuve 400000 la ñu mujj. waaw ba tey 400000 francs. ba tey mais 33 millions la ñu annoncé mais 33 millions waaw mais li mujjee amaat. 33 millions début bi la. démb ak barke dem 400. waa bu ñu arrivé ci 400000 francs mais jé jéegi bu taxawee suba ni damay fay 400000 francs mais war na koo mën a fay ñu bàyyi ko mu ñibbi mais su fekkee da nga jóg ne damay toroxal nit ki par force tëj neex génnee ku la neex da ngay yow yaa moom yoon ci dictature la ñuy dem et bu ñu àggee ci loolu moom mooy liberté d'expression dootul am parce que lan da nga naan ah tëj nañ ko ma ëpp doole mu ngi ci kaso bi ñi ngi bëgg pour poursuivre ñu ma ëpp doole ñu ngi ci kaso bi beneen bi moom mooy aéroport bi dañ koo tëj. boo ñëwee yow xamoo ndax da ngay ñëw fekk fa liste. Mm-hmm. ou da ñëw joxe sa passeport rek ñu dugg ci benn ruq woote benn autorité moo xam ku mu doon ne ko diw neen dafa bëgg a tukki est-ce conduit également moom itam. mi ngi noonu mi ngi noonu léegi nag fi ñu toll ñun ñëpp dañoo war a dem aéroport seeti ndax ñun. <laughs> dinañ génn wala déet donc li ñu jëm nii. mucc na ah, laay wax Kader ndaw mm. gis nga le cas du président de la république du Sénégal d'un président du Sénégal dafa bëri ay manipulation Macky Sall heure bu ko neex lay dugg Sénégal heure bu ko neex lay génn Sénégal c'est un ancien président de la république immunité bi Abdou Diouf am sengor amoon ko Abdoulaye Wade am ko président Macky Sall moom lay am Bassirou Diomaye Faye su fi jógee moom lay am qu'on arrête de manipuler les gens ou bien de pousser les gens à ne pas comprendre da ngay bu ñuy dëj ci kaso bi nañu wax constitution au Sénégal que ne haute trahison donc donc donc la ñu mën a tëjee président de la République au Sénégal.